ndax xëy ci xasida yi waxuma tawfeex waaye da ngeen am xaas tawfeex ju ànd ak xaas la sant ci la bu baax jëgën ci kenn mag secret baa secret sëñ bi xasida yi moo gën a gaaw moo gën a gaaw ci jege sëñ bi moo gën a gaaw ci am ngërëmal sëñ bi moo gën a gaaw ci defaru doomu aadama waaw incha allahu kon bala ngeen di teewlu rek xasida googu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 waaye wa annahu kafaani al asaba kama la si kaabadani asaba sëriñ tubaa nee na wa annahu naka luy mbir tey mbir moom yàlla waxaba may na lii ñeel ma samay xaada xataa xadat ba mujj na moom xaada ya ka amali saadaati mel ni jëfi mboolem sa sang yépp sangu su baas fa sëriñ tubaa nee na sun na ma péng me defal na ma samay xaada muy sama lekk yeg naan yi xeeti nelaw yeeg yéene yeg yëpp mu mel ni jëfi sangi yi buñ yéenee ba noppi jëf ba yàlla nangul leen la leen ca yàlla dig ci xeeti yool ak i payoor man bu ma nelawee ba bu ma nelawee sax ci waxin ba fajar ma yeewu sama neew doole moo ëpp doole seen naafale ya bu ma lekkee ma añ ci waxin wala ma reer sama añ boobu ak reer boobu moo ëpp doole seen jaamu yàlla mooy fanaanoo guddee di naafale ak di wóor bëccëg ya jàngoon ngeen ci gannaaw mu ne ci boppam mu ngi mel ni yónentu bani Israayil yi jàngoon nañ ko ci gannaaw kon yàlla may na ma sama aada mu mel ni jëfi sang su baax sax maanaam ci xeetu yool ak payoor kon kooku loo xam ne moom du aadam kenn mëntu xam nu mu toll su fekkee aadaam rek moo mel nii kon ana jëf yi ko yàlla gàll moom kooku ban payoor la cee war a am ci kaw sang ya kooku kenn xamul payoor kon nu mu toll wa annahu naku li mbir tey mbir moom yàlla latafa ñeewantu na bii ci sama jëmm ji lut fan ñeewantu goo xam ne yëfoox féetee na kaw sani sama njorto fa innahu naka moom yàlla alxalifatu mooy xalifa ba arafiq tey àndaale ba nee na yàlla de wóor na ma péng ne bi ma nekk ci géej gi daf ma doon ñeewantu ñeewantu ma na ñeewantu na ma ñeewantu goo xam ne féetee na kaw sama njorto nga xam ne na ma ko njortoo woon na ko kaw wal tuf bi al yawma bi ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini kuy jàng mafaatul bisri yàlla nag may ñeewantu tey jii ñeewantu goo xam ne mosoo ko ñeewantu kenn te doo ko mosoo ñeewantu ku yàlla sakk mu ne yàlla ñeewantu na jëm sama jëmm ji ñeewantu goo xam ne féetee na ko sama njorto yàlla moom may wax mooy xalifa bi waaye mooy àndaale bi mooy sama xalifa fi fu mën a nekk yàlla laa fa ànd ak moom fa nekkal moo xam fi beekoo Sénégal yàlla moom fa nekkal fi ma nekk itam yàlla laa àndat fu ma nekk rek day wane ne yàlla mooy xalifaam fu mu nekk rek yàlla fa nekkal waaye fu mu bàyyi gannaaw itam yàlla ko fa nekkal kooku mooy xalifa sëriñ bi mu bàyyi ko Mbàkke Baar yàlla la fa bàyyi ko xalifa la fa yàlla xalifa la ci moom kon ndeysaan mu ne wa annahu latafa bi lu yafuux ya fa innahu alxalifatu rafiq yàlla wóor na ma péng na ma ñeewantu na ma ñeewantu goo xam ne féetee na koo sama joto ndax mooy xalifa bi fu mën a bàyyi ko mooy sama fa xalif mooy moo doon foofu sama xalifa ga waaye fu ma nekki fu ma nekk itam moo fay doon sama àndoor luy mbir tey mbir moom yàlla kafaaniya fegal na ma ala asaba lépp luy mbugal kama asaba comme ni nga xam ne noonu la ma joñalee allasi ka nga xam ne kaa ba deni doon na jànkuwante ak man yàlla wóor na ma péng ba tey fegal na ma lépp luy mbugal moo xam mbugalum aduna wala mbugalum bàmmeel wala mbugalum ëllëg yomal xam lépp suñu borom fegal na ma ko musal ma ko comme ni nga xamee ne ki doon jànkuwante ak man di léewtoo ak man di ma fitnal ba tax njuub ma ci tukki ba ni ma ko fegalee joñal ma ko di fa ndar ma ba kookee mënul ci dara noonu la ma fegalee lépp luy mbugalum aduna ak alaxira moo tamit waa annahu nak luy biir tey mbir kafaaniya fegal na ma al asaba lépp luy mbugal kama asaba ni ki mu joñalee allazi ka nga xam ne kaa bëri nii doon na jànkuwante ak man nam ko waxoon ca jaalibatu paraxib ba kon yan yàlla dolli gërëm sëriñ bi ci waxtu ne ndax nooni saxiram yi ak baatin yépp suñu borom tas na seen yaakaar moom nag yàlla du dañ mukk di ko jox la muy yaakaar bo jox ko lu koy njortam wa annahu naka luy mbir tey mbir déet ma koy njorto àddëxra ci diirub jamono dégg nga dégg nga wa dana ma jox al amsala maanaam ay amsal mooy ay kem daal maanaam ñoo xam ne daal dañuy ànd man ci waxtu ne yàlla ci boppam moo ma koy joxal boppam moo koy tànnalal boppam yàlla dana ma wërsëgal yàlla dafa waxoon ci alquran ne ku sukkandiku ci yàlla mu doy ko sëkk waaye ku ragal yàlla suñu mborom dana ko génne ci mboolem xeeti njàqare yi ba wërsëgal ko foo xam ne sax njortuwut koon wa man yattaqillaaha yaj'al lahu maxrajan maxrajan mooy bunt boo fëgg rek yàlla tijjil ko ngir ragal yàlla bu dee xeeti njàqare torof torof ut na yëpp yàlla dal ci musal dala cee génne kooku mooy maxraj nga fu mu toll da dugal ci dëgg ak xéewal ak sutura ak ndimbalam ci saay ak ci baat da lay taxaw moo tax mu ne yàlla dana ma wërsëgal wërsëg woo xamee ne sax faw xona na sama njorto njortu mu koon ci jamono yi ne yàlla dana ma defal lii waaye yàlla moo may jox al am al am sala mooy ay kem dégg nga patun wa annahu naka luy mbir tey mbir moom yàlla yar suqu ni dana ma wërsëgal min xaysu laa ahtasib foofe xamee ni sax déet ma koy njort àddaxra ci diiru jamono mosu moon a li ne yàlla dana ma ko defal te defal na ma lan moo ko mooy mooy ragal yàlla waaye yàlla ma boo yoxti dana ma jox al amsala ay kem mooy ay kem ñoo xam ne daal ay àndu dooram la ñuy nekk ci waxtu ñu doon ay talibam wa annahu naka luy mbir tey mbir moom yàlla waxaba may na lii ñeel ma fii ci moom ci biiram wa fii xayril wara ak maa loo xam ne lam yëfi yeesu ko fekk li si waay ñeel ko dul man yàlla mu may na ma ci boppam may ma ci ngën ci mbindeef loo xam ne kenn du ko fekk ci ku dul man man rek la ko yàlla may ci jëmmam ji man rek la ko yàlla may ci ngën ci mbindeef kon sëriñ bi lim am ci yàlla moom rek moo ko am mu am ci yonent yi moom rek moo ko am duñ ko fekk feneen gis nga loolu wa annahu naka luy mbir te mbir moom yàlla waxaba may na lii ñeel ma wa fii nabi ak ci yonent bi maa laa yaraahu loo xam ne du ko gis mukk aqrabun genn aji jege wa ajnabi ak aji sori yàlla moom may na ma ci boppam may ma ci yonent bi loo xam ne ku jege yonent bi wala nga jege yàlla wala nga sëri yonent bi wala nga sëri yàlla kooku yépp ceem ku jege yàlla ak ku ko sëri ku jege yonent bi ak ku ko sëri ñépp ci am kooku fa tabaarakallaahu du ko gis mukk gis nga waaw loo jege-jege yàlla li ma yàlla may ci yonent bi may ma ko ci boppam doo ko gis mukk loo sëri sëri yàlla lu ma yàlla may ci boppam may ma ci yonent bi doo ko mos a gis wa ànd waxaaba may na lii ñal ma wa fi nabi ak yonent bi maa laa yaraaw loo xam ne du ko gis aqrabun génn aji jege wa aj na bi ak aji sëri loo jege-jege yàlla wala nga sëri ko yëpp ci am du ko gis coy salaa yàlla julli alayhi ci yonent bi sarmadan ba fa wa salamaate musalmal fii aali ak ci biir ña wa sax bi ak saxaabaam ya wala ulama dañuy xasal xamsa ga ak mboolem borom xam-xam yi jëfe seen xam-xam ya yàlla moom may wax ne moom ma defal lii yëpp defal na ko ci maa ngi dagaan ci mu ba faw te sëlmal ci moom julliwaale ci waa këram ak saxaabaam yi ak mboolem boroomi xam-xam yépp na julliwaale ci ñoom ñay jëfee seen xam-xam wa annahu nak luy mbir te mbir moom yàlla ba tey mu ngi ci wa annahu yi rek yu farihu dana béggalee biyee ci man arasulu ndawal yàlla te mu yonent bi fii xidmati sama liggéey bi ma koy liggéel ban liggéey la mu ne allati mooy bi nga xam ne tasiidu dana ko dolli dana dolli xayru sol ngën ci ak paju ko aju ci ak laaj nee na yàlla ci man lay béggaleeg yonent bi ci liggéey bi ma koy liggéeyal bi may liggéeyal yonent bi yonent bi salaay salaam sunu borom da ko ci bégal ci waxtu ne xam ne yàlla moo ciy bégal yonent bi sëriñ bi même buy bind sax yàllaa koy bégal dégg nga yàlla mooy wax yonent na ko sa waa na adhaka rabbi rasulullahi gis nga yonent bi yàlla mooy reeloo yonent bi ngeen bind gi sëriñ bi di bind waaw ndeysaan loolu dara daaxut ko waay am boroom di ko jaamu xejjam bu mel ni yonent bi du ab yonentum boo yëkkatee sa xalima ngay bala ngaa bind yàlla mi bind yonent bi bind la wax waxu yonent bi na ko muuñal sa waa ji na loolu sëñ bi rek ko am moo tamit wa an naku luy biir tey biir yu farihu dana bégalee biyee ci man arasul yonent bi fii xidmati ci sama liggéey bii alati mooy bi xam ne dana dolli xayri sul ngën ci ak laaj la ma doon laaj yëpp liggéey bi moo koy dolli ndax saa bu ma tëggee xasida rek su fekkoon ne am naa benn xalaat bu may ñaan yàlla saa bu xasida gi jeexee am na yeneen jo tax wax sama kanam moo tax xasida tabaarkalla lu man a ubbi xelam nit ki te sellal ko la te xelam nit ki bu sell rek nit ki Eh, day mel ni dañ ko ubbil mboole buntu xay bu yëpp mu xam tegginu ñaan xam nu muy ñaane xam mooy borom mu xam fu mu koy jaar yëpp tabarakallah wa annahu nak luy mbir tey mbir ma xaa far na ani mu wëli sama xoyoo bi sama ayib kama ko noonu la tabee li ñeel ma bii ci barkab yonente bil xoyóob ci muy kump ma di ko gis yàlla amul sikk sàkk ne far na sama ayib sama ayib yëpp din na ko ci man bam ser wicc waaye ni noonu mu faree ci man ayib noonu la ma mayee may gis xaybu yi mooy yu nëbbutu yi ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon naa leen saa bu ayib dindeekoo rek xuyub daal di ñëw moo tax boo xoolee ci xasidaam yëpp saa bu indee xuyub bayit bi la may daanoo mooy xuyub ndax xuyub lay safaanam mooy xuyub baatee arab dafa am benn bu ci nekk safaanam dégg nga boo ne xuyub lay safaanam mooy mooy xuyub su xuyub dindeekoo rek xuyub daal di ñëw kumpa ngay gis kumpa moo tax fekk am fekk yaa ngi ayib rek mënoo gis kumpa wa annahu naka luy mbir tey mbir yëquudu dana womatal li ñel ma maa uhib lépp lu may bëgg dégg nga dégg nga kama kama dégg nga kama uy bu ko bëggee rek waaw ni ma ko bëggee rek wa an noo naka luy mbir tey mbir moom yàlla yëquuru dana womat lii jëmee ci man sëñ Tuubaa maa uy lépp lu may bëgg kama uy ni bëggee la koy defee nag <laughs> jibóog yàlla neex waaye saa yi xam aji màng la mu jëm ci ku dul man maa laa uy lépp loo xam ne bëgguma ko moom ilaa si waaye mu daw jëm ci ku dul man xabla an yantahiya njëkk mu may jublu lii ci man kama muhiya ni ko noonu ba tey ni ko noonu la wëree la day fa moom sama lor mooy noonu la faree dégg nga rek la yi fa moom du sama lor mooy far na sama lor ba mu jeex tàkk lor dootu wàcc ci man sëñ Tuubaa mu ne yàlla amul ci sàkk ne lépp lu may bëgg wommat na ko jox ma ko ni ma ko bëggee waaye lu ma bëggul rek màngu na ko mu daw jëm ci feneen fu bokkut ak man njëkk mu mooy jub la ko yàlla di ma ko dàqal. ni ki nga xamee ne moom yàlla mboolem lor yu nekk fa moom yëpp moo ko fekk mboolem lor goo xamee ne am naa ko xam mu doon dogal boo xam ne da ko waroon a wàcc sama kaw mu doon ay coono yoo xam ne lor lay nekk tegee sama kaw yàlla dind ko ci man dégg nga moo tax mu ne kama uhibu saayiqan maa laa uhib ilaa siwaaya qabla an yantiya njëkk mu ma jublu nag lée ci man yàlla dindi na ko ba mu lu ma bëgg rek yàlla màngu na ko balaa mu maa jublu kama yaa li nga xamee ne noonu la peegee la day fi moom duri sama lor li nga xam ne sama lor yëpp da ko wér da ko wër peg ko xam lor gu neef kañ lay wàcc ak ban waxtu noonu la dindee yépp bam si lu ci dootul benn lor gi wàcc sama kaw te lépp lu may naqar maa ngi roog ma daw jëm ci kuréel balaa maa jublu mbir moom yàlla kulliyati sama lépp xadaa jubal na ko bi taxliya ci taxliya ko takkaayal ko ngëneelam dégg walla wala yaroomu te moom yàlla moom wala wala wala yaroomu te déet may sàkku mi ci man taxliya ak ak raggati muy di ma raggati mukk ndax koo xam ne set na jaratoo ragg ko kenn dootu la raggati nee na yàlla lépp lu bokk ci man da koo ràng ngëneelam ah te yàlla moom dootul ma taxliya ndax defar nañ ko ba koo xam ne seen gi wicc kenn dootu la taxliya kenn dootu la sang seen wicc sa digganteeg sa borom subhanahu wa mooy yàlla gërëm na la moo tamit wa annoo naku li mbir tey mbir moom yàlla kulliyati sama lépp xaddaa jubal na ko di taxliya ci taxliya ko mooy ràng ko li nga xam ne moo di ay ngëneelam wala yorobu tëddu sàkku mi nii ci man mu ko taxalee ak taxalee muy ak rinkiwaat waaw waaw yàlla maanaam li ma li ma ràng dootu ko rinki dootu ma raxasaat mukk ndax takkaayal na ma ngëneelam yépp lépp luy ngëneelam moom yàlla takka na ma ko ba mu fees dell te ko jaraat ko rinki du ko di ko ragg dégg mukk wa annahu nako luy mbir tey mbir moom yàlla tarada dàkku na iblisa iblis allah an ka ñu rëbb ko ilaa si waaye mu jëm ci ku dul man tarada baaxin dàkku aji des wa muy an tey aji dimbale képp ko am dimbal yàlla moom dàkku na iblis mooy dàqu na ko iblis mi nga xam ne dañ koo rëbb moo lis yërmande yàlla yàlla da koo dàqu dàqu ko moo lis yërmandeem nee ne suñu borom dàq na iblis mu daw jëm ci ku dul man dàq gi nan la mel mu ne yàlla mi fee sax boppam moo ko dàqal boppam yàlla mi aji dimbale képp ko am dimbal moo ko dàqal boppam ci ñaari turam yi nga xam ne kon day wane ne yàllaa ko dimbale ci saytaane ndax moo fi sax ku am dimbali itam moo la moo ko daqal saytaane moom mënul mënalul boppam dara lépp loo xam ne wax na ne suñu borom defal na ko yàlla koo defal waaye du jëm boppam ci wa annahu naka luy mbir tey mbir wajjahahu dana ko jëmale li xayri mu jëm ci kurun man mu ayyasan mbir moom muy aji naaguloo ko mi nii ci man bi usni xayri ci darajaay borom nopp yiw ba nee na yàlla suñu borom bi ma dàqale iblis iblis ci boppam yàlla dana ko xajji jëmale ko ci keneen ku bokkut man léegi man mucc naa ci moom buy jëm ci keneen lay jëm waaye du doon man waaye suñu borom naagaloo na ma ko ci barke bi yonent bi nga xam ne mooy usni xayri mooy borom nopp yiw ba mooy borom nopp ya nga xam ne lu baax rek lay déglu bu jeexee jeex na waaye du doon borom nopp mooy borom nopp boo xam ne loo ko wax mu gëm ko kooku mooy benn nopp moom lañ ko doon ayibal naan yonentu benn nopp la yàlla wàcce ay setal ko ndax loolu lu bon la ab yonent ku mel ni ab yonentu ñun ñi ko ayibal naan benn la yàlla wala seen yuusu na rasulullahi lu ñi ayibal yonentu bi naan benn nopp la di ko lor mu rëy dal na seen kaw ëllëg yowal xeex moo tax mu ay san mbir moom muy aji naaguloo mi nii ci man fi us ñaxeere ci dara jaay borom nopp wi ba ci la yàlla naaguloo ci man iblis dàq mu daw jëm feneen fu bokkut ak man wa annahu naku liy mbir tey mbir wàjjaxa jëmale na lii ci man dégg nga dégg nga maa yan foxo lépp luy jëriñe waaye wasaaxa maa nga ne li si waaye mu jëm ci ku dul man maa laa yan foxo loo xam ne du jëriñe lu mu indi rek day indi contraire lépp loo xam ne dañ naan njëriñ la yàlla jox na ma ko lu dul njëriñ rek yàlla màngu na mu jëm ci ku dul man kon loo gis ci sëñ Tuubaa rek la man man ngaa man ngaa jëfandikoo loo gisut ci moom rek doonul am njëriñ mu ngóob neex na firi wa annahu naku luy mbir tey mbir waxaba may na lii ñelo maa loo xamee ne lam yëkkun mos tu nekk ca la wéy mu may ko kenn wala yëkkunu te du nekk lil waraa ñeel mbindee fi mukk fi laf si kun ci baatu kun fii kun la ma ko defalee nee yàlla may na ma loo xamee ne ca la wéy amul kenn kum ko mos a may ñuy dikk ci mbindee fi du ko mos a may kenn te lépp ci baatu kun fii kun ci la ma ko may ku nekk rek mu daal di nekkee daal di nekkee noonu sëñ am loo xam ne kenn mosu koo am te kenn du ko am moom léppam ci kun fii kun lay dox waan na xoo nag luy mbir te mbir jaala maa katabtu yàlla def na lépp loo xam ne bind naa ko kamaa katabtuhu mu doon ni ma ko bindee wamaa kasabtu du ma fen yàlla def na lépp lu ma bind muy na ma ko bindee rek <laughs> te buñ ko xoolee fen du ci am waaw xam nga li muy nettali nii yëpp dalaa bëgg waxal ne li yàlla def la ba noppi waaw ndax lii dëgg-dëgg benn bu ci nekk darajaay boppam lu ko yàlla defal nii nga ne ah sëñ Tuubaa lu muy ëpp mu ne billaahi nii ma ko bindee nii la ko yàlla bëggee fen amut ci ndax léeg-léeg nga gis kuy bind koo xamee ni xaal rek ko dikkal ci mbind mi waaye amul kasu amul fattu amul dara moom daal mbind mi yëg-yëg rek yëg rek ci la ko dikkale mu bind ko waaye sëriñ yi moom li muy bind ca yàlla lay bay ko ci lawhul mahfuus lay bay ko yàlla de ko jox mu ko kon wa innahu ja'ala ma katabtu kama katabtu ma kasabtu moom yàlla moo koy enki wal muy sant yàlla waaw rabbi awsixni an askura nixmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardaahu wa adxilni bi rahmatika fi ibaadi salihin wa adxilni moom la tënkee aaye boobu la tënkee rum naa sukuuri la si bil kaafi wa nuuni maasaa yafxalu min baadin wa maknuuni kon mu góog moo tax ne yàlla lépp lu ma bindee na ma ko bindee noonu la ko nangoo te noonu rek la baaxee nag <laughs> bindam Sëñ Tuubaa doone bu ko defee woon nii mu gën a baax mukk ko maa kasaw tane na fenuma wa nag li mbir tey mbir kaana nekkal na liy ñal ma bi tabi siiri ci mbégte dégg nga dégg nga nag wa at wa mi tamin ak gën kaa sax sécurité saa tafsiri mbir borom mbégte nee na suñu borom nekkal na ma ci mbégte ci waxtu ne waaye nag ak sécurité goo xam ne day sax ah bu ne day sax rek ndax moo tollu toll man suñu tubaab maay borom mbégte moo tax mu ne wa annahu naka luy mbir tey mbir kaana nekkal na liy ñala bi tafsiri ci mbégte wa adduwa ma taamini ak gën kaa sax sécurité sécurité du mos a denc man mukk saa tafsiri mbir moom mooy borom mbégte katabtu bind naa fisal yem ci bii bis ne anna rabbi naka sama borom xada hawa iji fajal na ma mboolem samay xaaju yëpp wani xam est-ce que rabbi sama borom mi nga fajal samay aajo nee na bind naa ci bis bii ne man sëñ tubaa aajo ya ma doon wut yëpp la ma doon bëgg ci yàlla yëpp jox na ma ko tey ji est-ce que yàlla mu jox ma aajo yëpp moom mii sama borom te mën na ko ndax mu ma yaral boppam moo tax ne bind naa ci bii bis ne ma doon bëgg ci moom yëpp fajal na ma ko amul benn aajo boo xam ne bëgg naa ko ci yàlla te yàlla fajal ko kon ñu nit yàlla na yàlla fajal suñu aajo yi yëpp ci barke borom Tuuba radiyallahu anhu wa nafaana bi barakati amin mbokki Mafaatihul Bichri ñu ngi leen di ñaan bala ngeen a àggale xasida googu ngeen abonné ci seen seen YouTube Ibrahima Dieng taalibe borom Touba ngir gën a mën a yaatal liggéey bi ba mbokki taalibe yëpp jot incha allah te bu leen fàttee bu ci kolos bi bu ko defee bépp waxtaan woo seen duggoon nañ ko si seen seen YouTube rek ngeen mën cee jot incha allah moo xam firi Mafatihul Bichri la wala yenn ci diwaan yu demee ni diwaanu fulkul masoon diwaanu xuraaniyat yi ay yeneen yeneen incha allahu kon nee bind na ne tey jii moom sëñ Tuubaa ne lépp lu mu doon soxla ci yàlla mu doon xaajo boo xam ne digganteem ak boromam la mu xaajoon ko suñu borom jox na ko yëpp dégg nga mu tegaat ci ne fa innahu bi qawlihi kuni yukawinu say alasi lam yakuni mu ne fa innahu naka luy mbir tey mbir nixma amul morom bi xawli ca waxam ja nga xamee na moom lay wax ci dogalam ya ne kuni nekkal dégg yëkkuni ci lay am asay a mbir àlla si moo xam ne lam yëkkuni nekkutoon nee na est ce que yàlla nga xam ne lu mu bëgg a dogal rek danaa nekkal mu daal di nekk loolu mooy wax naa wax mi nga xam ne daal lu nekkutoon da koy amal yaa moon tëkku yu ni mu nan lam tëkku ni ca wakaanaa xanaa laa nasul mumin neen ko yàlla yow yaa ki nga yaay fekk loo xam ne mostu am kenn mosu koo xam kenn mosu koo gis yàlla amal ko mu daal am bët bu seen nga gis ko bu dee ci nit sax dee bët seen nga gis ko ma tax na fa innahu naka luy mbir tey mbir bàkk naa ko moom yàlla ma amul moroom bi xaw lii ci jami wax ne ku amal rek su ko defee nga xam ne yukko yu nu ci lay amalee asay a mbir alasi moo xam ne lam yukku ni loo xam ne kenn xamul koon yàlla amal ko ñëpp commencé koo xam tabaarkalla est-ce que moom yàlla moomu lépp ci kun la koy dogale naa jaytuhoo diyante naag moom si nii na ay at yu bari wax wate moom yàlla akaroo mooy aji tedd min ku liman ci képp koo xam ne yun maa des na askanale ilahi jëmee ci moom karamun ak tedd nga nee es est-ce que yàlla moom diyante nag moom ay at yu bari bari yu takkoo takku yàlla moom ma doon diyante nag mooy mooy mooy ki gën tedd képp ku ñuy askanere ak tedd waaw loolu moom waxin la rek tagg la tagg yàlla waaye yàlla moom teddantuwut ak kenn waaw waaw jiitantuwut ak kenn mbag rawantuwut ak kenn euh, rawantuwut ak kenn allahu min kulli karimin akramu gis nga foofu mu ne ko yàlla mooy ki gën a tedd bépp aji tedd kon loolu tagg la ci yàlla ndax gis nga rek ñi ngi koy takk ñi ngi koy wutal ay ndend di ko wutal ay morom fala taj alu lillahi andaadan wa antum taxlamuun suñu borom nee na bu leen wutal yàlla ay ndend ta xam ngeen yàlla amut ay ndend morom di yente naa moom ay at ndax yàlla mooy aji tedd ci képp koo xam ne ñu ngi askane jëmee ci moom a tedd nga man sëñ Tuubaa naa jeetu di yente naa xaalixal wara yàlla muy aji bindi mbindeef yi fil baxri ci biir géej gi wal bari ak jéeri ji xaadiman di aji liggéeyal li bari ñeel aji baax ji nga xam ne baxri mooy géej nee na diggante nag dégg nga euh, yàlla mi aji bind mbindee fi diggante nag moom di communiqué ak moom di ko ñaan di jokkoo ak moom di ko jéggulu ci biir géej gi ak jéeri ji waaye di liggéeyal ki nga xam ne ne mooy bari ak baxri booy taawil ñaari baat yooyu rek mooy ñi am xam-xam ak ñamul xam-xam buñ la baxru mooy ñi am xam-xam bu dee ci taawil bu dee bari mooy ñi ñàkk xam-xam mu ne diggante nag yàlla muy aji bind mbindee fi ci biir géej gi ak jéeri ji di waxanteeg moom waaye xaadiman di aji liggéeyal li bari ñeel ka nga xam ne mooy jéeri ji bëxëri tey géej ak kay muy bari ak baxari loolu indi ko ci xasida minanul baaxal xadim ci nee na tagg naa yonent bi salaa salaam mi nga xam ne mooy géej dégg nga ba mel ni géej <laughs> mis la baxari ba mel ni géej waaw naa géej ba mel ni géej xam mooy unit bi géej la dégg nga dama ko tagg ba mel ni géej boo demee ci bindul baax xadim da nga ko ca fekk bu bu bindal boppam naa jeytu diyente naag fil bahrin ci biir géej gi wa bari ak jéeri yi bi suwar ci saari alquran laa diyenteeg moom yàlla wala aye ak aye man mooy ki nga xamee ne ahsana rafetal na fatlan ci ngëneelam aswar melowa dégg nga nee na diyante naag sunu borom jaaree ko ci biit saari alquran yi def naa ko ci géej gi def naa ko ci jéeri ji kon ba muy dem ci géej gi sax laata muy dem ci géej gi daana diyante yàlla ci alquran laata bi bi muy dem ci géej gi ak bi mu demee ci géej gi yépp moo diyente diyante naag yàlla ci biit géej gi ak jéeri ji jaaree ko ci saari alquran yi ak aaya al yi léeg-léeg ma jël saari di ci diyanteeg moom léeg ma jël aaya yi nga xam ne ñoo nekk ci biit di ci diyanteeg moom moom yàlla mi nga xamee ne moo rafetal ci ngëneelam melokaane saa yi ak ay alquran yépp benn bu ci nekk nam ko teglante rek noonu la ko teglante waa jaxani jublu na ma jasaa ura payuk sama borom wa jasaa xayril wara ak payu ngën ci mindeef fii ma ci li nga xam ne bind naa ko rajasaa ci baxru rajas nee na payooru yàlla ak payooru ngën ci mindeef kenn ku nekk sa salaire jublu na ma ci mboolem xasida yi nga xam ne taalif naa ko def ko ci mustafailun mustafailun mustafailun mustafailun mustafailun mustafailun mooy juróom-ñaareelu baxru nu ko sofee diina teglante muy xalil ibnu ahmad al farahidi moo tax ne payooru sama borom juddul na ma ak payoorum gën ci kenn ku nekk lan may pay ndax yàlla la doon jaamu di liggéeyal gën ci mi def kenn ku nekk na payoorum jublu na ko ci xasida yi nga xam ne taalif na ko ci baxru rajas bixtu wa jaaxattu siniina waxdi di wax ci man kafa raxoosul jox di mu ne bixtu jaay naa sama dund wax di yàlla mooy kenn ku wét wa jaaxattu te jihaat naa ngir yàlla si nii na ay at li wax ci man ngir jëm yàlla ma nga xamee ne kafaroho weddi na ko sol jeex di borom weddi ña nee jaay naa sama lépp waaw lépp lu bokkut ak yàlla rek dama koy jaay ne la teg ko ne la jublu sama borom di jihaat ak sunu borom nekk ci géej ay at di jihaat ak yàlla di ko kennal di ko musul ko ni di tëqal yépp ma di ko danoose di ko sànni mu wulis yàlla lépp dama ko def ngir jëm yàlla mi nga xam ne ñi weddi yàlla ñëpp dañ ko weddi rek waaw ah, dañ ko weddi ci tay ko rek waaye xam nañ ne yàlla mooy yàlla buñ ne juxóot juxóot mooy weddi goo xam ne xam nga xam xam nga ki nga weddi mooy kan inkaar nag mooy weddi loo xamul moo tax arab baat yi niñ koy prononcé bokkuñ benn bu ci nekk am na ay mustalahaat mooy benn bu ci nekk daal am na nuñ koy teqanteleeg ñoom dégg nga moo tax ne jaay naa sama lépp yàlla muy kenn ku wét te naa ay at ma nekkee ci géej gi ngir jëm yàlla mi nga xam ne ñi weddi ñëpp dégg nga dañ ko weddi ngir tayu ko rek waaye xam nañ yàlla rek yàlla watona biixtu jaay naa sama lépp wax di yàlla muy kenn ku wét di ko jaamu ci ni wa jaaxatu te jiixat naa ak noon ye si nii ay at li wàcc man ngir jëm yàlla mi nga xam ne kafaroo weddi na ko sol jëx di sol jëx di borom weddi ña xam ñu weddi yàlla ñëpp xam ne yàlla rek mooy kenn waaye dañ ko bañ a jaamu aqraltu lebal naa rabbi borom maa loo xamee na rafa yëkkati yëkkatiku na ilayhi jëm ca moom waxoo moom allati mooy ki nga xamee ne man képp koo xamee ne laa sa wéedu na biye ci sama jëmm ji nafa dana ko jëriñ nee na lebal naa sama borom loo xam ne yàlla jël na ko mooy yëkkati na ko mooy nangu na ko rek xam nga alxuraan dane in tuxridu llaha qardan xasanan suñu borom nee na bu ngeen lebalee yàlla yàlla bu leen di fay da koy fulal léegi waa Màkk yi dégg na ah Muhammad moom danañ woote ci Màkk comme yàllam ji dafa ñàkk kay ñun koy demoon nañ ba koy bëgg a gëm waaye comme yàlla ji dafa toll ci lépp dootuñ ko gëmati <laughs> xam nga loolu la suñu borom wàcc ay na laqad samiha allahu qawla lazina qaalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniyaa te sa wa qatluhumul anbiya anbiya bi xayri xaqin wa naqulu wasuqu asaabal ariiq saalika bimaa qaddamata aydiikum wa anna allaha laysa bi salaami lil abiid yàlla ne dégg nañ ñi nga xam ne dañuy wax ne yàlla ku kuy xaajoo la dafa ñàkk waaw te ñun yàlla ñu woomal lañ soxla luñ daray kenn waaye nañu xam ne ñoom la wax danañ ko bind ak kenn ku nekke yebal nañ ñaari malaaka wëkkil ko ci yow muy raqib ak atib la ñuy wax yépp danañ ko bind waaye nag gis nga tabaarkalla mata kon boo déggee in tuxridoo laaha xadan asan yàlla kenn mënu koo lebal waaye nag loo def ci lu baax rek yàlla fayru lu ëpp loolu waaw loolu mooy in tuxridoo laaha xadan asan ba ci xasidi yi rek bor la yum lebal yàlla boo demee ci nuuru daane yaa ngi dégg maan ko yaa man loo awsaltu xayra xarti jox naa la ngën ci bor ko nuuru daareen rek bor la bu mu lebal yàlla boo xam ne bu ko ci yàlla fayee rek adduna gépp mën na leen ràmb dégg nga waxuma laa yeneen xasidi moo tax mu ne lebal naa sama loo xam ne yàlla yëkkati na ko jëmee ko fa mooy nangu na ko kon nag léegi njëg gi mooy ñëw ëllëg yomal xiyam ndax bu dee lam lebal moom jox na ko waaw <laughs> tabarkala sëñ bi mooy ki nga xam ne yonent bi am na lu mu ko war a jox bor yu mu ko a jox yàlla am na bor yu mu ko a jox nee na mooy ki nga xamee ne moom yàlla képp ku wéedu ci man rek suñu borom dana ko jëriñ waaw sëñ Tuubaa boo wéedee ci moom te muy dëgg njëriñu yàlla yi doo tàggoog moom tiraanga yàlla yi doo tàggoog moom xéwlu yàlla yi doo moom loolu ñëpp xam nañ ko axraltu lebal naa xayral xalqi ngën ci mbindéef maa loo xamee ne yedoomu dana sax dàkk bisiran di mbégte loxo ñeel ko inni man xadiimu ab bindaan ak mbindaan laa buy liggéey ba faw loxo ñeel yonent inni man xadima kuy sax dàkk di liggéeyal laa loxo ñeel yonent bi ni mu lebalee ba te la lebalee yonent bi mu ne lebal lebal naa ngeen ci bindef loo xam ne mbégte lay doon di sax ci moom xam ne heure bu ne li ko sëriñ bi lebal yonent bi da ciy bég ci moo tax mu ne man sëñ Tuubaa du ma mos a dañ di doon bëkk néegu yonent bi koy liggéeyal di ko bégal faaraxani teqalikoog naag man al ahda u noon yi bi tawxiidi ci wéetal gi may wéetal yàlla wa xidmatil musafa ak liggéeyal gi may liggéeyal kañu nangu am ci noom al wahid kay aji wéet ci mbindeef yi nee ne teqalikoo na ak man mboolem xeeti noon yi ci wéetal gi may wéetal yàlla ci la noon yi tagguk man liggéey gi may liggéeyal yonent bi nga xam ne mooy al musafa di al wahid al musafa mooy ka nga xam ne accord dal nañ ko ne moom kat bu ëllëgee ma xaw ma kat waaye moom dana ram mooy al wahid nag bu ñu mooy al wahid fil wara ku wét ci bit mi def moom kenn la ku yàlla sakk dégg nga alhamani na ma fii xul walaaw ahad ci biir saar wii di xul walaaw ahad muxjila jumlatil lu gàccal mboolem noon yi alhaadi yi yàlla muy aji gindee ji mooma enkewal al ahad moom muy kenn nee yàlla muy aji gindee ji tudd alhaadi yi nga xam ne ku gindeeku moo la gindi dafa la hidaayatu tawfiq wa inna laaha la haadi la si na am na ila siraatin mustaqim waaye yàlla moom mooy kenn bi mu sàkku dara nee na mooma enkewal ci biir xul wala ahad loo xamee ne mboolem noon yi lu ñuy bëri bëri gàccal na leen ñoom ñëpp am mujj torox am gàcc ci yàlla enkewal gi ma enkewal ci saar yu doxul wala ahad dégg nga waaye ndeysaan walaay kenn kenn kenn kenn kenn mostu gis ku mel ni sëñ Tuubaa moo tax lu ko yàlla defal mosul koo defal kenn nee naa loolu la xul wala aat gis nga ñetti tur yàlla fi nekk booy xool ñetti tur yàlla yëpp sëñ Tuubaa tuddee na leen doom sëñ Abdullahi borom dër bi sëñ Abdou Samad sëñ Abdul Ahad gis nga xul wala ahad Allahu Samad gis nga kon kooku defe naa ne léppam da koo joxoon borom wëkkil ko ci moom. sababtu joñ naa xan saati nabi walis jëmi yonent bi. wa sifa ak melom bi xeddata axwaamin limi ay at fan xaadat womatu na lii jëm ci man sifa melo bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne am na at yu ma nekkoon ci géej gi di difandar jëmbi yonent bi liñ koy tëqal ak melom bi melaw wi ko yàlla bind nga xam ne moo gën taaru lépp gën a rafet lépp ak jëmbi yonent bi sallallahu alayhi wa ni mu sellee ta taaru lépp ay cëram yëpp mat ta jot dégg nga cëram yëpp ay organam yëpp yàlla tag ko ci alquran doq yaag bët yaag lépp tànk yaag yépp alquran moom rek moo am cër boobu yàlla di tudd ay organam benn par benn di tag yonent bi sallallahu nee na nag dama doon défendre jëm yonent bi xam nga ni muy défendre le jëm yàlla ji ci li ko nasaraan yi di bokkaale noonu lay défendre le jëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ni ko yàlla musalee ci bépp ayib ak gàkk moo tax ma ne joñ naa mu sëri jëmm yonent bi ak melom bi li mi ay at lépp luñ koy tëqal ci ay melo yoo xam ne gàkk la waaw di ko ayibal naan benn noppal ak jaaj yëpp nee bam ba mu ko defee nag melo melo yooyee nekk ci yonent bi te ma doon ko difandar muy mel yu sax ci moom ye bokkut ci moom ma di ko difandar melo yu ñoo mujj womatu ñëw ci man dugg ci man kon boo gisee yonent bi ay melo mooy melukaanu Sëriñ Tuubaa katabtu bind naa muuqinan mbir moom may aji wóolu ne bi an annal Moustapha naka ka ñu tànn ka salaa yàlla na julli alayhi ci moom rabbunaa sunu borom ka Moustapha kam ni ma ko tànnee bind naa ne xilli mooy sama xarit wa hibbi te mooy sama soppi wa abbaate bañ na sax ma madarati sama lor dégg nga waraama sàkku na masarati sama mbégte min rabbil wara mu tukkee ko ci yàlla muy borom bindee fii nee na bind naa te bu may bind damaa wóor péng ne mbind mi nii la amee nii la ko yàlla bëggee nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla yàlla ci moom yàlla mii sunu borom yàlla sax dàkk du julli ci moom comme ni mu ko tànnee ne jullee noonu ci moom bind naa mu wóor ma péng nag ne yonent bi sallallahu alayhi sama xarit la sama soppe la loolu moom dama ko bind mu wóor ma péng ne yàlla def na ma ko te loolu sama digganteeg yonent bi relation bu ratax boobu rek alaaqa boobu bu dëgër boobu rek moo ci nekk ala alaaqatul waasiqa bu dëgër moo ci nekk. mu ne nag li ma bind moo de yonent bi sama xarit la di sama soppe te yonent bi ci bopp moo bañ sama lor ku jóg di ma lor moo moom nga attaqué ah, boo amee xarit dëgg ku la bëgg a mooy taxaw waaw ah, boo ko xoolee ci nit ñi rek gis nga ko bu dee sëriñ daara yi nit daara ñi gis nga boo leen laalee ñëppay jóg di wax ci média yi naka noonu boo demee ci nitu nguur yi noonu lañ mel kenn ku ci nekk ak fi nga far. ba ci ñiy topp musiciens yi sax boo boo boo laalee musicien ba ñoom ñëpp génn di wax noonu lu mel. kon sëriñ bi nee na yónent bi bañ sama lor ku ma bëgg ku bëgg lor yónent bi na xam ne man ngay lor waaw waaw sëñ Tuubaa ku bëgg lor yónent moom ngay lor waaye dafa dem ba nga xam ne moom ku fe ku fekkoon ngaa bëgg lor sëriñ bi léegi nag yónent bi ngay far lor eh, xam nga doon nga dégg mu ne ak a neexoon yónent bi salaasam sama ñaari lex yii sama ñaari lex yii man lal ko ci suuf yonent bi jël ay kam teg ko ci waaye gis nga fii mu ne la wa abba madrati nga xam ne fu ne tey dafa mujj jàllal bi ku wax ja nga bi relation boo xam ne léegi ku bëggoon a attaqué wax ni rek yonent bi ngay ci yàlla muy borom bindee fi di ma sàkkul sama mbégte man amatuma lu may naqar yonent lay sàkku ci man talabtu rasulullahi lii fawqa matlabi minallahi rabbi sama yaakaar du sooy fa yàlla koo xam ne yaakaaram du sooy ci yàlla rawatina nag yónent bi nga xam ne moom xaritu yàlla di soppeeb yàlla yàlla yónni ko gënal ko ci ñëpp lu yàlla sàkk lu nu yónent bee tax yónent bee tax bu demee ci yàlla na ko sëñ defal sëñ Tuubaa nangam kooku dëgg dëgg na xam ngeen ne loolu tawféex la allahu yàlla ci dëgg dëgg nag rab mooy son borom wane bi yónent bi ahmadu mooy ahmad wasilat yi mooy sama wasila loxoo jëm ci yàlla wa inni man mii nag di wax ahmadu mooy ahmad dégg nga mu ne man nag da ngeen xam ne yàlla mooy son borom yónent bi du son borom de waaye yónent bi turam mooy ahmad mooy sama wasila jëm ci yàlla sama sëriñ de benn sëriñ la am muy yonent bi waaye man mii nga xam ne maa koy liggéeyal mu doon sama escalier bi ma yëg jëm ci yàlla di ko liggéeyal moom yonent bi di jaamu yàlla man maa tudd Ahmad ah maaye mboorum biitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyiduna kooku mooy sunu sang ma turam mooy Muhammad sala yàlla na julli allahu ci kawam musalliman mbir moom muy aji sëlmal fil xis bi ci biir kuréelam ba man yàlla mi nga xam ne ah, laa yëkkati na ko xallaahu mbir moom muy aji kawe nee na kooku may wax mooy sunu sang turo mooy Muhammad yàlla na yàlla julli ci kawam gannaaw bu yàlla jullee ci moom sëlmal ci moom yàlla na julliwaale ci kuréelam bi di saxaabam yi ko toppante gëm ko yëpp te dee ci ngëm nga yàlla mi nga xam ne moo ko yëkkati mu féete kaw ñëpp moom yonent bi xat xaala dox na bay nii sama diggante waa bay na kulli man ak diggante képp koo xam ne dégg nga yesoo uni daf ma doon naqaral fan xaadate wamut na lii jëmee ci man xayru saman ngën ci jamono mooy ngën ci ñoon jamono rek <laughs> maanaam wamut na ñëw ci man bu ne xayru saman mooy ëxlu saman rek waaye la suñu mborom lépp képp koo xam ne ma doon naqaral dox na sama diggante ak yow maanaam su fekkoon ne xeex a dox suñu diggante yàlla dox na suñu diggante ba teggale ñu dem nga ma dem waaw mucc naa ci yow waaye ñi gën ci ñoon jamono ñoo ñëw womatul ma topp ma ñi gën ci ñoon jamono ñoo ñëw womatul ma topp ma xat xaala doxale na bay nee sama diggante wa bay na ku liman ak diggante képp koo xamee ne yesoo uni daf ma doon naqaral fan xaada womatu na liy jëm ci man xayru saman ngën ci ñoon jamono maanaam ëxalu saman dégg nga <laughs> sëñ kon yàlla na yàlla gën a toppaloo yoonu sëriñ bi eh, ci waxtu ne di def digleem yi te digleem yi mooy digleeg yàlla mooy digleeg yonent bi sëñ Tuubaa mu indil fu lu bees xam tànk yonent bi saasam rek la topp waaye ñi nga xam ne ñoo ko toppoon itam di mag ñëpp moom la leen joxoñoon waaw kenn ku nekk nam la ko joxoñee pour nga mën cee jaar ci jaarin wu ñoŋ te bañ a jaar ci mboy gi ca jaar ci yoonu siraatul mustaqim kon nag yàlla na yàlla waxawloo ci yoon woowu in uridu ila al islaha ma stataxtu wa ma tawfiqi ila billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullah